boutique waa kër Serigne Fallou boutique waa kër Serigne Fallou di jaay ay tissus nekkee ci marché Ocass Touba ci centre commercial Soxna Astu Mbàkke bépp xeetu tissu boo leen soxla am na fa moo xam muy bu góor wala jigéen li fi nekk ci ay tissus de classe ay tissus de qualité lu ma lim lim du tax ma matal kon ñu àndandoo doxantu dem seeti boutique waa kër Serigne Fallou kon ñoo ko gisandoo li fi am ci ay tissus ay xeeti tissus yu mucc ayib. am classe ak kalité méngoo ak jamono jéggi na dayoo bokk na ci yooyu nag ay mbasin mbasin riche mbasin jesner premier wala deuxième classe mbasin Allemagne mbasin golden basin coton am na fi itam ay brodé yu mucc ayib brodé marigay multicouleur brodé simple brodé coton val brode am na fi itam ay cuub yu méngoog jamono cuub VIP cuub Facebook cuub WhatsApp ay cuub palman ay paquetage 7 mètres cuub Autriche am na fi itam ay wax yu méngoog jamono ay wax étaguette ay wax simple am na fi itam yeneen xeeti tissu yu ci mel ni ay jipiir coton ay soie deux tons ak ay soie centum boutique waa kër Serigne Fallou itam fàttew ñu ñi nga xam ne ni ñoo di góor ñi fàggul na leen ay tissus yu mucc ayib bokk na ci yooyu ay super 100 ay Dubaay ay coton ay percal ay naat ak ay mayluus kon nag yéen ñiy waajal seeni xew moo xam muy màggal gàmmo cant ngénte wala ceet te bëgg a sañse ay sañse yu mucc ayib méngook jamono yaa ngi lool ñëw leen fii ci boutique waa kër Serigne fallu ay ndaw yu yaru bëri ay teggin man seen liggéey teg ko ci yoon ñoo leen di teeru teral leen taxawu leen ba ngeen am li ngeen bëgg ci xol bu sedd bu li ci gën a neex nag fii ci boutique waa kër Serigne fallu ci waajtaayu tabaski gi dinañ ànd ak yéen ci spécial promotion kon nag ku yeex ñàkk ku romb rëccu fii ci boutique waa kër Serigne Fallou di jaay ay tissu nekk ci marché Ocass li ma fi gën a yéem dal sama xel mooy kaaraange gi fi am lu mbooloo mi bëri bëri lu ambiance bi jax-jax yéen a ngi jàkkaarloog caméra surveillance yi di saytu jëf yi ndax kat ñiy màggal ak ñiy raas dem bokkul boutique waa kër Serigne Fallou di jaay ay tissus nekk ci Touba marché ocas sant commercial soxna Astou Mbacké responsable ba di soxna Madaloo gérant ba di Serigne Cheikh Ndiaye ak ñi mu àndal képp ku leen soxla mën nga leen a woo ci numéro yi 77 536 84 08. wala 77 409 08 30. wala 76 460 75. 46 boutique waa kër Serigne Fallou ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal mucc ak tawféex di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu tamit. salaati wa taslimi alayhi lahu wa ali wa sahbi wal azwaaji yallahu wa asbilanna alayna rabbi xaafiyatan wa hab lana alxasda fi ddaari yallahu